bëgg a sori fu mu la yëg a sori war na mën a jeex foofu war na mën a jeex foofu mais du sori na de waaw waaw da lay digal siis da lay daan jël eh, voilà. dërgëndal ci yooyu seen biir dërgëndal ga foofu noonu ñu ñaar combat bi yéex na lool Idali ak Pathé Pathé ngemboo ngembul weex li Idali ngemboo ngembul Pathé Idali Pathé na moo jekku Idali esaay nii dama xamul fu ñuy wax ne di mu jëkki bëtam ee eh, Pathé Idali waaw waaw. Ndeye Doole boobu ponkal la bu la tëkkee ba mu jeex waaye waaye ji dana naa bu doole. Déba Débi yaa ngi nii yi may xar fa xuufay Déba Débi ndox yi ndoxu ne la Modou dama laa wutal beneen wutal nga sangu ci wala jox si Ousmane wala Malick <laughs> mbokku internet Dakar Midi ak ak Akibas te ñoo ngi lamb si lamb ji. dama général bu Malika ndeysaan laay di saan waaw waaw doomu Malika jaa ngi nii yaakaaru ngi nii yaakaaru baraag baa ngi nii ah bu Malika ndeysaan waaw waaw waaw mais lamb cosaan la bu yor sa loxo ya ndeysaan oho oho da nga ngoon xoolal ma cumbukaay Malick daa may buteel la ma may buteel la ma may buteel la ma jox ko mu raayoo ko ndeysaan <laughs> lamba ngi nii oho ndeysaan paaluuri na seen combat day métti ma ne poids lourd seen combat day métti musul yomb combat poids lourd yomb may nuyu mbokk internet Dakar Midi nii ak internet Actubuzz Ousmane sama xarit sama ndaanaan Ousmane moom naa la ndeysaan maa national Pikine doo gaari sa Dakar Midi Agressé Connecté ak Tibuzz ñu bës cloche notification ngeen am vidéo yi temps réel waaw waaw da lay daan jëli waay waay xale doole waay eh, xoolal ma kii nu mu toll waay <laughs> waa Ndiol waay rab ji ne la fi vacicité il est tout il est jëli bu rëy <laughs> seen ba léegi. bay baaraam di jàng doole. dam seen ba léegi. waaw dam seen dam seen dal la jël bu rëy. dam seen daanaan la daanaan la. ñoom ñaar ba léegi. waaw war na mën a jeex nag waaw jeex na jeex na. daal fi ñagas jënd bu rëy ba lamb daa baaxul lii xoolal ba Paul Maurice mu teg ci am ay pertaw cey lamb lamb lamb bari xoolal xale yi fu ne la ay tukki sori indi indi seen saak ak ñu ne ci lamb ji ak seen i saak buñ daanoo wéet orange <laughs> moom dina fi bàyyi tey orange <laughs> ak bulldozer da koy daan wala Zambala ndaa bulldozer la du xool ba suñu dugg suuf Zambalanda Bulldozer du xool ba suñu dugg suuf eh, bul def loolu la ilaha illallah loolu doxul jàmm loolu musul dox jàmm Zambalanda da koy yóbbu si kaw dugg suuf ñu ne mbokk internet Actubuzz lamb suñu cosaan la Général Ndoye la blessé bul nay tax mbër daan compétir te ak journée bi CNG moo ko tëgg CNG chaque mercredi bi léegi dañuy dégg lig simple bu si waaw chaque mercredi bi léegi si région yëpp lañ koy def rek Dakar Kaolack Fatick Mbour fu nekk CNG mu ngi fay def léegi chaque mercredi li nga xamante ne mooy lambu simple dañoo bëgg xale yi am compétition xale yi di compétir lambu ñëpp ñoo bëree arène ñëpp ñoo bëree nit dafa frappe ñëpp ñoo laal ci milieu yi boo xoolee licenciés yi ñoo bari écrit yi bari école yi bari. li nga moo si génne yéen ñi mais li sax sant itam dañu koy gaz li gën a bëredoor la bëredoor est-ce que xale yi moom lañ gën a taamu tey fa xale bi moom may général may général bu la jàppee làmb ji jeex na mbal poussé na ba si dënd ba moom Boy Malika waaw xale bi lañ jëloon mbal ba waaw ndey at bi am naa ko gis naa ñu jox wala si fi wàllu combat bi Modou mu daan mel ne la France générale la. moo ma jaaxal fi mu bi dafa sëñ bi si mbër bu bees. waaw combat Sathiès ko awa paquet na ko rëcc na daan na ko wax waaye ah combat bi leerul de bon bari na coow de général li mu def wóorul général man ngaa wóori de moo di mën na bëreel dee na ko doole doole dama wane ko ndox mi da koy jaay wala muy def yéen ma si kaw tur suuf wala Dame Sène ba léegi booy ci loo ne nangu naa la ci loo nekk ndeysaan Dame Sène ba léegi Dame Sène ba léegi ndeysaan avertissement yaa ngi dal laa <laughs> ilaha illallah waaw waaw waaw dal ko mo Mamadou Ndanane la <laughs>